soppe yi xarit yi am ji jàmm yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel eh, ci turu dégg nga macha allahu fondation Keur Rassoul sallallahu alayhi wa ci seen sit bi nga xam ne xew ci jamono macha allahu ngeen di ko koj jamono bu nekk mooy fkr 92 point com macha allahu ngeen ànd kook seen soppe seen xarit bu leen yéene yiw lool muy Abdoulahi Mbaye di imam fondation Keur Rassoul sallallahu alayhi wa sallam moo dellu siwaat ak yéen ci seen émission maa bëgg rasul maa bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel e, ñu ngi ko ak nag ak sunu caméraman bu baax bi Omar Rasoul e, ñu ngi ko bégg muy xale bu am taxawaay ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp e, seen émission maa bëgg rasul nag sallallahu alayhi wa tey ñu ngi programme waxtaan tey incha allahu taala ci al iman al iman ndax liimaan mooy fondement bi mooy moo yenu lépp moo xam bëgg yonent bi la sallallahu alayhi moo xam julli juróom la moo xam aj màkka la wala génn asaka dégg nga wala mooy lu mën a doon wala jokk bokk lu mu mën a doon ci yàlla santaane teg ko ci loosu jaam bi li ko gaddu di ko doxal mooy iman billahi iman billahi nag moo yor lépp kon bokk yi eh, seen émission maa bëgg rasul sallallahu alayhi wa tey mi ngi leen di indil ci taabal ji iman billahi iman nag daa yasdaadu wa yanqusu liman day dolleeku fa tabaarakallaahu yàlla ñu ko yàlla defal waaye day wàññeeku macha allahu laa hawla wala quwwata yàlla nañu ci yàlla musal eh, muy lu am solo iman mooy waruwaay bi nga xam ne mooy yenu jëf ji di ko yóbbu day suur nag di duuf comme ni fas di mel day nekk ci état bon état comme ni oto di mel nga xam ne lépp dox na ba mu mën a yóbbu bagage bi fi nga soxla kon imaan lépp loo xam ne daf koy dolli ñu bàyyi ko xel lépp loo xam ne daf koy wàññi ñu moytu ko su ko defee kon imaan billahi mooy fondement bi ci ngay teg tabax bi mu jóg ci lislaam ñu ngi leen di bége di leen dokkeel ki nga xam ne nag moo jiite imaan dégg nga naan ko naan ko muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam iman boobu nag eh, ki nga xam ne moom lan ñu roy la muy saydul wujudi wa alami suur sallallahu alayhi wa sallam eh, bin ñu montelee liman bi te nag te nag eh, iman billahi benn ñi monteel la ko moo gën àdduna ak li ci biiram moo gën àdduna ak li ci biiram xam nga lu tax laqad daa umrun saatun minhu tustara bi mil i sama wal ardi ayata dayati sidi haj malik radiallahu taala dafa wax cefala budda ba ne laqad daa sànk na umrun ab dund nga xam ne saatun minhu benn waxtu benn waxtu ci ci dund boobu benn waxtu bu liimaan boo xam ne ku yor liimaan am na ko dund benn waxtu mu pertal ko ci dundam mi ngi mi ngi jar asamaan ñu lal suuf ñu lal ko sotti wurus ba asamaan buñ ko doon jaay benn innertant bi loolu lay jar loolu nag li may wane mooy fooraayu liimaan maggaayu liimaan képp ku ko yor képp koo xam ne monteel nañ la iman billahi borom bi deseelatu la dara deseelatu la dara am nga lépp léegi li ngay def mooy fexe nag macha allahu compte bi di am dara mooy iman billahi li koy dundal mooy astaghfirullah la ilaha illallah allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ñett yi warul manqué ci liimaan waru ci manqué jamono bu nekk war na ci am ak lu mu tuuti tuuti tuuti astaghfirullaha bés bi lëmm maanaam 24 heures yi war nga ci am fukki astaghfirullaha lu mu néew néew ba fukk ak benn ci bis bi euh, laa ilaha illallah lu mu néew néew war nga ci am ñaar fukk ak juróom lu mu néew néew néew allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim lu mu new ne war nga ko am juróom yoon wala fukki yoon ci bés bi su ko defee nag ci la liimaan bi dund ci ñetti programme yi astaghfirullah la ilaha illa allah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim léegi nag su ëpp su baree nag moo gën waaye may mayun kenn ku monteel liimaan mayun kenn nga toog xëy ci suba ba jant so waxoo benn astaghfirullah waxoo benn laa ilaha illallah waxoo benn salaatu ala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kooku musiba la loolu musiba mu rëy la te it soo koy def liimaan bi day feebal day feebal comme courant comme courant comme portable bu batterie bi feebalee ba fay ku la wax du la jot dootoo am réseau su ko defee kon batterie bi dafa war di charger ba fees del moom portable bi su charger nga am réseau boole ci dégg nga ba noppi am crédit su ko defee léegi ku la woo jot la koo woo jot ko su ko defee dangay ngay mën di dem xadara ba message yi di ñëw waaye nag ak lu mu néew néew néew mbokk yi soppee yi xarit yi fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa jamono bu nekk day am lu mu teg ci seen loxo pour ngeen dimbandikoo ko mooy lan mooy lan mooy képp ku am iman billahi ñi ngi lay ñaan lu mu néew néew néew bés bi nang ci def astaghfirullah fukki yoon ba fukk ak benn lu mu néew néew su ma tee téeméer nag moo gën <coughs> téeméer ci astaghfirullah ci bés bi ci diggante guddi gi ba ci 24 heures yi nga fexe ba am ci téeméeri astaghfirullah moo gën waaye soo demee ba mënoo ko ci am nag lu mu néew ne nang ci am fukki astaghfirullah nang ko ci am laa ilaha illallah lu mu néew néew néew néew néew na nga ci am fukk ba ñaar fukk ba ñaar fukk ak juróom soo amee cent nag moo gën laa ilaha illallah nga def ci téeméer moo gën waaye bu manqué ci bés bi bu manqué allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala beneen xeetu tëggin ci salaatu salaatu ala nabi bari na salaatul fatiha fi salaatu tunjina salaatul salaatu naariya bu Cheikh Ibrahima Taasi salaatu salaatul salaatul xaajati dégg nga salaatu salaatu yi salaatu yi bari na salaatu yi bari na bari na lool tëggeen yi waaye bi ci gën gàtt mooy sallallahu ala muhammadin wala nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim léegi nag lu mu néew néew néew bés bi nanga ko ci am ñeent ba juróom ba fukk lu mu néew néew néew waaye nag soo xëyee suba ba jant so nga fanaan ba bët set muy muy muy ñaar fukki waxtu ak ñeent amoo ci benn astaghfirullah wala ñaar mbaa ñett amoo ko ci amoo ci benn laa ilaha illallah wala mbaa ñaar mbaa ñett amoo ci benn salaatu ala bi loolu moom liimaan bi day daal feebal day daal di feebal su ko defee sa xol bi day tàmbali wow loolu yàlla nañ ci yàlla musal nañ moytu loolu bu baax astaghfirullah bi nag dañu bëgg soo koy wax nga wax ko ibadatan pour jaamu yàlla mooy lan nga ne astaghfirullah yéen a ci jéggalu tuub dem ci sa borom bañ bañ a diiju nag bañ a diiju su fekkee da nga ree na xaqataay ba yàgg na astaghfirullah su ko defee astaghfirullah boobu baaxul kenn du ko point boobu baaxul wala nga yéemu laa ilaha illallah nga yéemu kooku duñ ko nangu mooy lan mu ne laa ilaha illallah waaye Omar xool waa ji mi ngi dee laa ilaha illallah waa ji dana rey waa ji waay su ko defee boobu baaxul boobu laa ilaha illallah duñ ko classé duñ ko classé Agadejo naan eh caay waay sama gars yàlla ma serasir na am de di def loolu boobu it bëgguñ ko su ko defee biñ bëgg mooy nga ne astaghfirullah nga def ci lim gën jaa néew fukk fukk benn saa nag moo gën boo ma mënee ci bés bi diggante guddeeg bëccëg laa ilaha illallah gën jaa néew fukk boo defee saa moo gën allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim gën jaa néew ñeent ba juróom ba fukk gën jaa néew waaye nag boo defee cent moo gën bu ëppee nag tabarakallahu moo gën ndax fa sallu ala al muxtaari fustum mawaahiban min allaahi fi daarayni fahwa kafilu kon nag bokk yi eh, seen émission maa bëgg a rasul ngeen ànd ko seen soppi Abdoulaye mbaay moo ñëwoon ak yéen tey ci iman billahi pour lu koy dolli tey moytu lu koy wàññi kon nag loolu mooy sunu capital da nga xam ne ëllëg moom lan ñuy laaj ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp kon fondation Kër moo leen di tàggu